عني نفى ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal ko ci notification bi loolu mooy tax vidéo bu ndugal rek ngeen mën ko am jaa ngeen jëf man daal yu bari yi moom kontaruma ko sikkuma ci dara ndax màggal yi ay yëfi am na ci yu bari gëj gi ñuy gëj a gise tey gise jaar na bés bu set nu màggal sëñ Tuubaa rëy na rëy goog jaar na bés bu set nu di ko màggal kenn ku ne sa waajur wala boole ci sëñ Bamba moom rek nga am jaar na bés bu set ko màggal kon di ko defal bis at mu ne moom jaaru na te kenn na defalul sa baay ñetti bis ak ñeenti bis waaye nag ña bokk baay ñëpp nag bokkoon benn bis daal ña bokk maam ak bokk baay kenn ka fekki woon sëñ Bamba la ñuy def lépp nga xam ne moo leen booleeg sëñ Bamba daal ñu wut bis boo xam ne mooy bisam boo na fi boole ci seen bis yi way jur yooyu muy benn bis daal te ñu wàññi màggal yi daal loolu daal ba ma amoon baat ci nguur gi ba ma am baat ci sëñ bi dees na ko def yi bari na métti na réew mi naqari na dong yi soree nañu te dong yi rek bu ñu wootee ñenn ñi rek ñëw boo léegi ñu wootee ñeneen ñëw ku nag ba nga woo sa waa kër nga ñëw te sa waa kër ñëw nañ te it xëy nañu du ñu sonn mukk ci ñëw ga ñuy ñëw yow may seen sëriñ te woo leen waaye daal yeneen i taalibe jàmbur daañu si ñëw yoo xam ne doo seen sëriñ de sag jub rek ak sag baax baasa sa wëllëree leen andi ba bëgg a def ngir yàlla ñooñu ne paas yi metti na oto yu yombul réew mi dang na fexewoon ba màggal yëpp yëpp yëpp ñu mujj dajale ko ci màggalu Tuubaa gi nga xam ne bu dikkatee di bisu sëñ Bamba ma nga xam ne lu waay am sëñ Bamba tax am ko bu boobaa loo jàngal sëñ Bamba ci kéemit jox ko ko addee jàngal ko say wajur bis bay benn képp nga xam ne at ma ne yoonu murit benn magal lay am daal lii daal bu ko defoon réew mi dana fi gën a noppal gouvernement bi gën fi noppal gouvernement bi jotewu maa ñoom dara ba di leen tawatal sax waaye mën na maa waat ne ndax man lu ñuy joxe ci magal ab gouvernement mosuma ko jox man dara lu bàyyi ko ci gouvernement bi dugg sa kër mu te ko fay woote ko ne Macky Sall rek toog na fii ci sama lal bi ker ba fi toogee yëkkati naa kurusug barkeelu goo xam ne dutuma ko am mukk jox ko ko nee naa ko la nga bëgg da nga ko am boobaa léegi dégg tur Macky Sall defaatuma ko sakkatuma lu ñu joxe mu jox ma ca waaye la muy joxe da koo muur réew ko moom loola nag alal li ñëpp man soxlu ma sëñ Bamba miy joxe te da lay jëppi te lam la jox du yeex du wàcc du xeew yi kooku laa bëgg mu di ma jox waaye nañ ko waroon a jàppale moom mi Macky day yeesuut ko ndax Cheikh sëñ Cheikh Fatma suñ kilifa gu baax gi day dégg naa Senghor yónni fa ndaw ci ak màggalam ba noppi nag ne ko nanu ñaanal ndax moom ñiy jàppale réew mi ci la bokk sëñ Cheikh na ko boo demee ne ko ñaanul ma ko réew mi rek laa ñaanal foofee mu ne mu ne fa ak keneen ne fa laa ci yemale foofu waaye ma ne te Sénégal dong mu balaa fa ak luy defar réew mi koo mën a doon loo nekk nekk naa caa yow ndax da nga fa caa fekkoon ndax aw lu réew mi loolu la laay waxee ne Macky ay màggal yu bëri yi nga xam ne gu gu gu dul sànq màggal dégg naa lam ci yónnee fonctionnaire yu bari duutuñu liggey wup seeni biro li ñi dacc magal yi xawma nu mëna tol way gouvernement bi dana ci perte lol Sénégal dong ko ñene way gën a roy mu ko def dutu tala magal waaw lol li man mako ko wax lu ca way xam say ba wax ma ko ku ne sa bay ngay màggalal waaye suma sañon magal màggal di genn rek ku ne ñoddi sa màggalu baay ba ci màggalu sëñ Tuubaa ma tax sa sa baay doon dara daal ñu def ko genn goog bu dikkee donc yëpp am lu ñu indi ba jógee si di ko waajaat ba delsi waaye fukk bis bu ne fukki màggal bu su seen ñaar fukki màggal te gouvernement bi mun si ñàkk a def foo mu yónni ndaw am ñoo xam ne ñi seen weer ca lay yem am na ñoo xam ne ñi ca la ñuy lekkee kees am na ci ñoo xam ne ca lay def donc it ku ne dem a dem ba yaay si dugub jàng yaay si sa loolu daal sëñ màggal la waaye daal. bu buñ ko defoon genn daal ni ñi gën koo jekku moom sañu ma nag bay digle de dama bu ma doon te doonu ma nag waaye kenn mu la nag ma bëgg moom waaw te loolu jàmm rek laa ci bëgg si affaire si la daal nii mu def ba màggal di sañ Daaru Assane Ndiaye waroon na mat fukki màggal ak nangam ku ne màggal te sama waa kër daañu ñëw te sañ Assane koy defal ngir jëm di sañ Tuubaa su ma sañoon ba mu ko defee ba muy genn ñëpp roy ko ci goog yi su fekkee mën na duñ def genn itam kenn ku ne kër gu ne rek màggal yëpp ñu jajal ko muy defee kenn ku ne di màggal sa bàyyi daal loolu daal kenn xamul fu muy jëm kenn daleen ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte te ngeen laal ko ci notification bi mooy tax vidéo bu ndugal rek ngeen mën ko am jaa ngeen